رضينا بالله ربا <clears throat> وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الحمد لله حق حمده نحمده تعالى على ما استفى من عباده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه لا شريك له في أفعاله لا شريك له في صفاته ونشهد أن سيدنا محمدا رسول رب العالمين أرسله للناس كافة رحمة بشيرا ونذيرا اللهم صل عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات وأهل الأرض mbokk yi dañuy tàmbalee sant suñu borom jalla jalaaluhu ko ci ay turam ak ay melokaanam yu mat sëkk yi xiiwalam yi ñu defal buñ doon kente benn xiiwal suñu giiru dundu xeej na ci in tauddu nicmatallah benn xiiwal di nangu yëpp ne moom mooy suñu borom ay dogalam ay bëgg-bëggam ay digleem ak ay tereem lépp nag ñu tegu ci ronam di seede nekk mu yónni mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa ndawam la mu yónni mu ñëw nag ma tee ndaw wax na jëf na bàyyi fi itam di ñaan ci yàlla mu wàcce ci moom xiiwal wàcce ci moom yiw wàcce ci moom teraanga lu mu am na pour njabootam la yàlla yàlla boole ci njaboot googu la mbokk yi dañuy delsiwaat ci njàngale yi góor gu baax gi nga xamante ne moo ñu jàngal moom moo ñu xamal suñu diine xamal na nu ñuy muccee ca àllaaxira mu bokk ci ñi yàlla wax ne suma awrasna alkitaaba alladina istafayna na gannaaw bi yonente yi demee dafa am ñoo xamante ne ñoom laa tànn ñu wuutuma ci liggéeyu yonente yooyu góor gi nag bokk ci catégorie boobu boobule mu jàngaloon ñu ci fukki kàddoom ya ak ñaar ya ñu jël ci ñett sell ga ak yiw ga ak yéwén ga lépp ci xol ndax boo seetloo bu baax a baax ci doxalinu borom bi tabaraka wa di ko borom xam-xam yi leerale dafa am ñetti étape ak taxalli summa ak taxalli summa ak tajalli ak taxalli mooy nga am loo rocci parce que da am looy waaj a dugal ci biir te ñoom ñaar àndeewuñu te seytaane dafa profitoo nag jiitu boor gi ne nag il faut ñu raxasa moom ak taxalli il faut mu am lu ñu dindi ci ñetti kàddu yooyu nag mu ngi nekkoon ak ñun ci taxalli mu ñëw tey jii nag ak taxalli la nga war a dugal la nga ko war a remplacer ba vide du fa am ndax vide espace yàlla amu ko lu nekk rek am na lu mu kon boo génnee yooyu am na yoo war a dugal ñu tuddee ko ak taxalli bu paree nag ak tajalli door na ne jàkk nag suñu borom ni mu ko doon waxee nga xamante ne dara nekku fa ndax yàlla bët du ko gis la koy gis feneen la lu bokkul ak bët moom la Seydina Ali waxoon ne ndax dina gis sa borom ne ko borom bu ma gisul bu ma ko jaam moo tax góor gi ne boo yëgsee ci jumaa ji di ne jàkk ki nga xamante ne mooy sa borom il faut nag nga jiital la bu yooyu nga xamante ne lim lay yàqal dafa bëri ndax ki ñuy tuddee iblis li ko yàqal yépp ca xol ba mu tuddoon la ci alkibr waxoon la ijaabul mar'i bi nafsi nga xamante ne ñaari phase la ci benn pièce mooy rëy ak yëg sa bopp rëy ga moo tax mu ne duma sujudal aadama yëg sa bopp moo tax ba ko malaayka yi ne gis nañu ku nara a sànku ci ponkalu malayka yi ñaanal ñu ndax ku nangoo ñaan la ci yàlla te jege te yàlla bu ñu naagu mukk ci yàlla ñu ko ñaanal ñu buñ ko doon yéeg ba mu yéeg bopp mu ne yàlla bu leen ko doon moom mu rocc ci boppam ihjaa boobu noonu nga xamante ne yonente bi moo ko définir ne alkibru batarul xaq wa xamtu naas dina rëy moom mooy dëgg doo ko accepté sa boroom kër wax la kàddu muy kàdduy dëgg sa xol jog réyama sa bàyyi sa yaay wax te lañ la wax dëgg kese la sa xol jog réya ngi ci yow sa dëkkandoor sa kilifa sa directeur jox la ay orientation nga ne waroo ko wax ci kanamu nit ñi waroo maa yedd ci kanamu nit ñi li ñuy tuddee ijaabul maa a man maay wax dëgg parce que boo demee ba yegg foofu nag bu boobaa xamal ne yaa ngi sol yëre yi iblis yàlla buñ ko sol tey góor gi ñëw ak noonu ci bëgg yàlla ragal yàlla yaakaar yàlla muy ñett danañ ko jël te ñu ci taxawaay bu gàtt incha bëgg yàlla moom mooy fopp ko loolu nag ca xol bala ndax yàlla xol la soxla te kenn mënu koo nax nag te li nga bëgg nag ci moom ngay sawar est-ce que yow sawar nga ci yàlla وتكمل نكا شيخ محمد مصطفى ابن شيخ الخديم سي مصطفى بودومو شيخ احمد بامبا رضي الله تعالى عنهما من ان الاراده ليست بمجرد كلام فحسب بل ان معها قرائن تدل على صحتها الا وهي الصدق في المحبه والخدمه والخدمه بقدر الوسع والحال faman sadaka sadaka fi hubbi cheyin aasarahu ala alxayr fa yadharu fi llisaan wa yuassiru fi ljawaarih bil amal bi muqtadaa fa inna almuhibba liman yuhibbu mutiyaw góor gu baax ga nee na sopp ndax Sëñ Tuubaa loolu la dund ta mu tudde leen murit ki sopp yàlla ki bëgg yàlla nee na murit te mooy taalibe te mooy jullit te mooy nit boo ne dangaa sopp yàlla waroo koo yemale ci ay kaddu dafa war a feeñ ci say comportement moo xam ci waxin moo xam ci jëfin ndax koo sopp wuuteeg moom sopp ba des na am na kuy nax sa morom nga dem ci alquran mu ne in kuntum tuhibbuna allah qul wax leen bu dee ne ñoom dañu sopp yàlla fa tabiyoon mel leen ma man Muhammad di ma mel mel leen noonu naka la yonent bi meloon bu ngeen meloon noonu yuhbibkumullahu yàlla sopp leen mel ni ngeen bëgg yéen kon melal ni yàlla bëgg yàlla mel yow di nga bëgg yow naka la yonent bi meloon de mel leen ni man bu ngeen bëggee yàlla fattabi'uni mooy nangul yàlla lu yàlla def nangu ma moo tax mu ne fa mahabbatullahi taala ci téere bi gaayatu kulli muminin yasbiquha tawbatun sadika wa sabrun ala ma yuhibbu llahu wa nee na yàlla def ak lu yàlla digle rek sawar na ca kontaan na ca doo ko critique de ak ni méttee sax bu yàlla dogale nga nangu danga rafet feebar ak ni méttee bu ko dogalee ci sa kaw nga nangu ne yàllaa ko dogalee nii fekk yëgguloo fa soppaguloo yàlla gis nga boo soppee ki nga sopp lu mu defee rek daf lay neex seet ko ci say doom sa doom léegoo léeg mu defaru ci sa kaw waaye daf lay neex bu dee yaay léegoo léeg doom ji matt ko waaye daf koy neex parce que dama dafa sopp kii kon boo soppee yàlla lu yàlla def rek daf lay neex feeg yeggaguloo fa soppaguloo borom bi tabaraka wa taala ay atteem xadaa uhu wa xadaruhu dogalam yi yàlla nu mu tegee rek doo xëccoog yàlla bu boobaa nga door a ku sopp yàlla sopp yàlla boobu nag moom mooy dégagé ba yëgg ci li yàlla moom tànn ko mooy yonentee mi ak ñi leen wuutu te mooy nit ñu baax ndax yonent bi dafa doon wax ci ñaanam yàlla sa la doon waxal dépassé na nit di wax ak yàlla ne allahumma arzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba maa yuqarribuni ilaa hubbika mais yow yàlla may ma ma sopp la noo defee rek mu neex waaye may ma ma sopp itam képp koo xamante ne sopp na la la ca jiitu mooy yonente yi la ca tegu mooy boroom xam-xam yi nga xamante ni ñoo leen wuutu góor gu baax gi ñu dundal nag dunduñu ak yonente yi dunduñu ak yeneen borom xam waaye moom mii dund nag ak moom gis ni ko yàlla gënale woon lépp lu yàlla indi ak lu manti mel mu nangu ko accepté ko ak xol sedd doo yëg sa moom ne kii énervé wu na alayhi yonente bi wax ñu ne la yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa waladihi wa naasi ajmain balaa ngay doon jullit piir ca yàlla waxuma sopp yàlla de waaye man Muhammad bu ma yónni il faut nga sopp ma dama génnal la sa baay génnal la say doom génnal la lépp nag bu dee nag gisuloo Seydina Muhammad ka nga gis mu di la koy won mooy sa kilifa teg ko foofu le sopp ko ba mu génnal la lépp nag te sa poga génnul nag mooy nu mu mel la mel noonu mooy na mu baaxee na mu nangule yàlla na mu wottale ko ay bakkaar ak ay ñaawte nga fexe mel loolu rek mooy sopp loolu du dëggul sopp yal na yàlla boole ci ñi ko sopp ñaareel ba ragal yàlla góor gi ne nañu ragal yàlla xanaa ba ñu raxase ba vidd dugal bugg yàlla ndax cofeel moo lay puus mooy moteur bi nga xamante ne moo lay puus pour man laa yëkkati pour nga jóg dem wuti la nga sopp gis nga bu duloo sopp yàlla kenn du jóg fajar di julli kenn du tiimu alquran di koy jàng saxaaba buñ tuddoon jihaad dañ doon kontaan ne kontaan nañu tey la ñu war a dajeeg suñu borom mooy faatu bi parce que sopp ba ñu sopp yàlla ragal yàlla gi nga teg ko ci nag nga war koo def nag fi sirri wala alaaniya ci li feeñ ak ci li nëbbatu ragal yàlla alquran wax ne akramukum inda allahi atqaakum ci yéen ki ma gën a yëg man yàlla ki ma gën a yëg lu mu bëgg ma bëggalee ko ko lu mu bañ ma bañee ma bañalee ko ko ci lu mu nekk ma ànd koog moom ci lu mu nekkul ma génn ci nee moy ki nga xamantene ne ak kàqu moo ma gën a man yalla lima bëgg mu bëggalé mako lima bañ mu bañalé mako ci luma neex mu nekk ci ak man ci luma téré mu bay kon yalla sétal bul di laaj niko borom xam-xam ba wax man ban place la am ci yalla jaru ko di dem di laaj man man naka la tollu ci yalla est-ce dara la ba yow sétal sa bop est-ce yalla don la dara ci yow ni yalla tollu ci yow rek yow nonu nga tollu ci yalla ndax fadkuruni adkurukum niveau bi nga am ci man man yàlla même niwo bi la am ci yow abu hurayrata radiallahu anhu nee na jële naa ko ci lamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñu laaj ko ne ko ayu naasi akram nit ñi kan mooy ki ci gën a tedd ki ñu war a gën a fonk kan la qaala mu ne akramuhum indallahi atqaahum ki gën a ragal yàlla kooku moy ki gën a màgg ci nit ñi xaalu ñu ne ko laysa an haazan asaluk maanaam fi ñuy waxee bokkul ak fi ngay tonto yaa rasulallah xaala mu ne kon fa akramu naasi yusuf bu fekkee ne gis na ko am na ku gën a tëdd ci nit ñi kon yusufa lay doon ndax mom nabiyullah ab yonente la yàlla di wax ak mom di yonne ci mom jox ko lam ko jox ci xam-xam ak ci mbax ibnu nabiyin dom doomu yonente mooy sayyidina ibrahim seydina sayyidina yaquba yaquba ab yonente la ci mbax ga ci xam-xam ga ci ragal yàlla ga ci mat ga ci yërmande ga kon mom baxna bayam baayam ibnu nabiyillahi doonaat sët ci nabiyullahi ibrahim xalilillah seydna ibrahima itam doonoon yonent ca mbaax ga ca yërmande ga ca xam-xam nga ca yaatu kon bu fekkee ne danañ tànn nit ku gën mooy moom baax na mel na baayam mel baayam mel na baayam mel baayam mel na baayam mel te seydna ibrahima am na loolu seydna yusufa am na loolu yal na yàlla tànn ñu na ndax yàlla moo koy defal ku ko soob yal na yàlla tànn alquran wax ne walladina amanu ñu gëm liggéey seen liggéey jóge fi dem wa tabaatum zuriyatuhum bi imaani seen njaboot ñëw jël seen tànk teg ko ñoom fa ñu teg seen tànk alxaq naa bihim zuriyatuhum la ma leen jox dinaa leen ko jox fa ma leen teg dinaa leen fa teg wa ma bi na amali min shay'in te du ma jël seen jëf di leen koy tegal wala seen jëf di leen koy tegal ñoom kenn ku ci ne yaamalu ala shakilati lii la yàlla wax kon baax fexe roy ci ay tànk yu baax suñu góor bii nga xamante ne mooy suñu kilifa fa mu teg tànkam bedeb kenn ku ci nekk ci ñu ñëpp ñu doon njabootam ñi mu jàngal ak ña mu xamal ak ña mu gindi ak ña mu leeralal ak ña mu defar kenn ku ci nekk xam nga ni melo nga fexe nag jël say tànk nag teg ko foofu le lii la yonente bi wax xaalu ñu ne ko laysa an hada nasaluko dafa mel ni dañuy tontu ci dimension bu gën a kawe ñun fi lay laaje mu ne kon fa an mahadinil naasi tasaluuna ni maanaam nit ñi waaso yi da ngeen mooy bugg a laaj waaso yi ndax ñoo gën joolaay ak séeréer yi arab yi ak tubaab yi naar yi ak lañ lay laaje ndax tubaab yi ñoo gën ndax arab bi ñoo gën ndax joolaa yi ñoo gën séeréer yi ñoo gën ndax famille bii sant nii ñoo gën foofu lañ lay laaje ndax foofu gënante am na fa kii géer la kii géwél la kii ñeeño la ndax gënante am na foofu qaala yonente bi ne déedéet xiyaarukum fil jahiliya xiyaarukum fil islaami ida faqihu ne na ka nga xamante ne ci ngor la dund boobu lislaam ñëw lislaam ñëw mu jël te la te gën a am solo ida faqihu la yonente baay wax de ida faqihu budene gorgolu ne na ju ci xam-xam mune bu boba kooku moy ki gën kon budé fami bo xamantene xamante ne ñoom ñëpp xam nañ leen ci xam-xam xam leen ci ragal yàlla kon man lañ wax ne fami bobu ñoo gën budé kër go xamantene ne ñoom ñëpp ragal yàlla xam-xamu alquran xam-xamu sunna gorgolu nañ ci kon fami bobu ñoom ñoo gën budé xet la itam ñu xamé leen ci xam-xam xamé leen ci ragal yàlla xamee leen ci màndu bu boobaa ñoom ñooy ñi gën kon yonent bi daf ko jël teg ko ci benn benn benn benn muul benn fondement ida faqihu ci luwa arabe charte la ida faqihu bu dee jàng nañu alquran jàng sunna bi yonent bi kon famille bu bëgg a gën nañu góorgóorlu ci alquran قرب لو تيسو نبي يونت بي يالا نكو يالا اللهم اجعل نفوسنا تقواها فزكها فانت خير من زكا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم انا لا نسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه اللهم انا نستغفرك استغفار الانبياء والمرسلين ونتوب اليك توبه الملائكه المقربين وهب لنا انابه المخبتين وعوبه الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الحمد لله وكفى بالله شهيدا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي راغال يالا بوغو تي كاد بن بو يالا واخ من واتق الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون نينا يين بوروم خيلي راغال لين يالا بو نين بوغي ريسير تي ادنا الاخره kon ragal yàlla gi gor gi wax ne nañ ko jël mo meuna rafetal suñu aduna mo mën rafetal suñu alakhirah fi di aduna mu ne wala aqibatu li taqwa rivalité fu manti nek fa ragal yàlla ga nek fofu la mbir ma di mujj bu alakhirah joté inna lil muttaqina mafaza neena ñaragal yàlla ñom ñoo fay texe ñom ñoo fay mucc ñaarel ba wala ñettel ba ndax tudd na bëgg yàlla tudd na ragal yàlla nga xamante ne yonente baa wax ci xadiisul qudsi mu ne yàlla neen ñaari ragal ñaari tiitaange du ma ko teg nit ki mu tiit fii ci àdduna ragal ma bu àllaaxira jotee muy ragalaat safara di tiit du am waaye ñaari dal mayuma ko kenn fii ci àdduna ngay defee ni mu la neexee di waxee ni la neexee di taxaw fi la fi la neexee bu àllaaxira jotee nga amaat fa dal nee na defaluma ko kenn man yàlla defaluma ko kenn dangay tiit fii ci àdduna bu àllaaxira jotee ma dalal la moo tax mu ne fal yadhaku qalilan wal yabku kasiran jooy leen lu bëri te wàññi seen retaan yi bi na bu ngeen xamoon li ma xam law taalamuna ma la bakaytum qalila la bakaytum kasira wala dahiktum qalila di ngeen neewal seenu reetaan te baril nag seenu jooy ñetteel ba di ragal yàlla góor gi nañu ragal nañu nañu yaakaar yàlla ñetteel ba di yaakaar yàlla yaakaar yàlla nag mooy sa lépp nga aj ko ci yàlla doo ko aj ci keneen borom bi tabaaraka wa taala ne wa ala llaahi fal yatawakkali lmu'min boo yaakaaree yàlla jëlal sa lépp nga wéer ko ci moom mu wax ci xadis ci alquran ci aaya ba boobu muy tagg ay yonent seydinaa yaxya ak baayam seydinaa ak baayam muy zakariya ñoom ñaar rek doon ay yonent mu ne kaanu famille boobu nekkoon nañu yadoonanaa ragaban wa rahaban dañ ma ragaloon te yaakaar ma nga xool fii ni yadoonanaa ragaban wa rahaban ragaban la jiital mooy yaakaar yàlla ga wa kaanu lanaa xaashiin imam al-bukhari di nettali ci xadis abu hurayra ta jëlee ko ci yonante bi mu ne inna allaha kataba kitaban qabla an yaxluqa alxalq anna rahmati sabakat gadabi fa huwa maktubun indahu fawqa al arsh nee na yàlla bu mbindee arsh ba pare dafa def affiche am te képp kuy jaay nag di commerce am nga sañ-sañu def sa affiche publicité la nekk ci biir Yalla dina na arash baangi ni man ma fess arash kenen kudul man newu fi waye li fi nek nak lir len anna rahmati sama yermande, ak sama mer dañu rawante waye sama yermande moko raw fuf kon yalla won nañu mom moy kat ne nañ ko yaaka motax dem ba ñàkk espoir ci yàlla bakkaar ginu koo rey moo tax seydina ibrahim alayhi salaam wala seydina yaqub innahu laa yayasu min rawhillah illa al qawmul kafirun nee na dem ba am ñàkk yaakaar amatula benn espoir ci yàlla nee na yow yéeféer nga yéeféer bi maanaam yàlla considéré bokkatula ci jullit kon da nga war a am toujours rek looy réservé ci yaakaar borom bi tabaraka wa taala ci beneen aaya mu ne wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dalluna boobu la wax Seydina Ibrahima ne ko képp koo gis muy naagu ci sama yërmande man yàlla nee na dafa réer xamul fi ma toll man xam xamuma man yàlla alayhi salaatu wasalaam wax innama al amalu rahmatun min allahi li ummati nee na espoir te mooy yaakaar yàlla bi góor gi di woote nee na nañ yaakaar yàlla nee na yàlla moko wacce ci sama xet mu don yermande innamal amalu moy espoir rahmatun minallah. allah la bu joge ci yalla li ummati ñeel sama xet nina budul won dul at espoir maa ummun waladan wala garaza gharizun shajara yonente bi nee budul won yaakar bi nit ki am ci doomam bu ëllëgee mu jiriñ am fu ko fete ne du nampal doom budul won yaakar bi nga am ci garab gi bu ëllëgee mu am fu la fete ci kepar ga ca doom yaak ila akhirih nena kenn du jëmbat garab kon mbir yëpp yaakaar ba tax yàlla nee na jëflante leen ak man ci yaakaar góor gi woonu ci loolu loo manti def ci ñaawteef waaye yàlla ba ba mu defee bàkkaar lu mat ñeent fukki fan ñeent fukki at mu di koy jaamu yàlla wëlbatiku di mooy yàlla ñaar fukki at jàkkaarloog seetu ba ni ah est yàlla dina ma nangu yàlla feeñu ko ci seetu bi ni ah kay depuis ñaar fukki at ba ñu du mooy ñu ngi toog di lay xaar saa yi soo dellusiwaatee rek ñu gën a gaaw ko accepter la moo tax ci xadis ba mu ne yow jaam bi booy ñëw ci man di dox si man yàlla damay daw si man yàlla damay yërëm sama jaam ko koo accueillir accepter ko ci sama wet moo tax bul am ñàkk yaakaar bul mas a ñàkk yaakaar ci man yàlla ndax boo koy def rek man yàlla yaa may tooñ kon il faut nga am yaakaar ci yàlla ak loo mënti def ak ñaawte boo mënti def ba waaj a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk dafa jaar ci Abdullah ibnu Mas'ud ca guddi ne ko bakkaar bi ma def ndax yàlla mën na maa jéggal mu ne ko lan nga def mu ne ko waa dëkk bi bu ñu suuloon nit ca armeer ba mu doon jigéen nee na dem ay suufu dem ca bàmmeel ba gas ko caaxaanee ndaw si ba pare dal li jël nag la nga xamante ne moom la ñuy tuddee kafan bi maanaam sër bi ñu ko muure ma jël ko yóbbu ko dem jaay delloowaat ko ci biir pax xoolal ñaawte bi mu muure ba mu koy Abdullah ibn Mas'ud dafa tiiti yuuxu ne génnal sama néeg ndax balaa yàlla di wàcce mbugalam ci sa kaw yóbbaale ma man nii génnal sama néeg ba mu ko dàqee mu dem ca fajar boobu noonu mu dem ci yonente bi ne il faut que ma wax li yonente bi parce que kii li mu def garaaw na waaye yonente baa ngi fi xaaral ma laaj ko ba waxee yonente bi yonente bi ne ko amoo ci droit ndax yaay yàlla bay dàq ci yërmande kooku bu sellalee tuubam dellu ci yàlla yàlla jéggal ko bàkkaar ibnu Mas'ud ne xaw ma kan la xaw ma fi mu dëkk ma dem ca marché ba ne ki ma laajoon dem ba ci guddi li ma laajoon bu guddee na jaaraat sama néeg maag moom ñu defaraat waxtaan bi ca guddi nga waa ji foog ko ñëwaat mu ne ko boo jéggaloo ci yàlla yàlla jéggal la say bàkkaar kon loo manti def loo mënti def yaa ngi naan lu daganul yaa ngi def lu jagadi yaa ngi dugg ci génn ci loo xamante ne rafetul di jël alalu jàmbur bés boo demee ba daal sa bopp delluwaatal mu wóor la ne ki la bind def laa bëgg moo tax mu bind la te du la ma sa jëppi mukk jalla jalaalu wa azza kamaalu kon delluwaatal ci yaakaar boobu ñu tëj ko alayhi salaatu wasalaam mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ko ci yàlla لو لم تذنبوا بوغن نيكلون دي ديف بكار لا ذهب الله بكم يلا دنا لين فاغاغال اكراز لين ديندي لين تي كاو سوف ولا جاء بقوم غيركم دنا اندي نينن ني دول يير يذنبونا دي ديف نياوتف تي واخكو تي جيفكو فيستغفرون الله دي جيغالو يالا فيغفر له يالا جيغال كون غور جي ني مو مانتي ديف تي بكار دواتا يالا تيجول بودو بي ابدا nee na bu bëccëgee dafay ubbi buntu buntu yëpp yàlla dina ko tëj masalan buntu warsak bu nawet jotee ci la yàlla di ubbi li ñuy dundee ci at bi yëpp ci nawet bi lay génn li def ci juróom-ñeenti weer yëpp dañuy bénéfice li ñuy liggéey ci diir boobu yeneen tamit ne lu yàlla am am na heure bu mu koy ubbi ak heure bu mu koy teg waaye nee na buntu njëggal du ko teg bu guddi jotee mu ne ana ñi doon def bakkaaru guddi bakkaaru bëccëg nañ ñëw ma jéggal leen man yàlla. bu bëccëg jotté mu ne ana ñi doon def bakkaaru goudi nañ ñëw man yàlla ma jéggal leen te kenn du yëg ba tax yonente bi néna ak lo manti def jéggalu ci yàlla ndax yàlla mo soxla waccé njëggalam malaayka yi ñu koy défé soxla wu ñu njëggal bàyyi ma yi lu ñuy défé njëggal duñ leen bindal bakkaar nit ak jinne ñom ñoy def erreur ñom moo tax yàlla tuddu xafuurun tuddu ghafar bo démé ci asmaul husna ñaar yo répété nako rahma wal maghfira ñaar yoon la wax rahmaani rahimi pour wane ne li ma ci am dafa bëri waaye ba mu waxee ne itam njëggal gafurum gafaaru pour wane ne boobu itam li ma ci am dafa bari ci beneen xadis ba mu ne law lam tuznibu alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen deful woon bakkaar di def ñaaw tef seen erreur yi ngeen di def noonu bu dul woon erreur yooyu erreur yu ma tax moo tax ma bind leen yéen yàlla bindon na malaika bindi nag waye dafa soxla ko mu jëgal motax mu bindi adam mune nak budul won sen woon yi ngeen di def ak sen erreur la khashitu alaykum ma huwa ashad min zalik ragal na lu gëna garaw lolu dalé ñu ne ko lolu moy lan mune ne al ujubu al ujubu répété ko dem be yek sa bop kon lego leg yàlla natula la sutural la pour boobu yëte nga xam yaay kat buñ la taggé say doom di lay tàgg say taalibe di lay tàgg say jabar di lay tàgg say emploi di lay tàgg boo wéetee xam yaag moom xamante ne jalla jalaal yàlla dina lii maa ko def kullu bani aadama xattaaw kon ñetti yi góor gi nee na nañ ko dugal ci biir xol yi te mooy rag bëggu yàlla te mooy ragal yàlla te mooy yaakaar yàlla gis nga ñett yi boo ko boole dafa mel ni picc bu taxaw dafa mel ni picc bu taxaw gis nga lañuy tuddee bugg yàlla dafa mel ni mooy bopp bi ñett yi góor gi wax dafa mel ni picc bu taxaw ci nga war a mën a naaw ba yëgg ci yàlla bopp bi nag mooy bëggu yàlla bi gis nga fee bopp baa ngi fi yeneen cër yi mën a liggéey mën a def nga man leen a continuer mën leen a liggéeyee bu dee bopp baa ngi fi waaye bopp bi bu deñee yeneen ñi lu muy liggéey kon moo tax il faut nga sopp yàlla te mooy bopp bi bu ñaar yooyu sottee nag alxawfu mooy ragal yàlla mooy màgg bu ndeyjoor bi war rajaau yaakaar yàlla mooy màgg càmmooñ bi nga mën a naaw nag jëm ca yàlla il faut nga boole ñett yooyu boo ko defee rek sa yëgg ci yàlla doon lu gaaw la moo tax yàlla tudd yonente yi almuqarrabin ma jege parce dañu naaw si gis nga kiy dox ak kiy naaw ñoom ñaar lañu mën a jeexal ci espace ci diggante ci air tolloowuñu kii gën kii naaw moo gën a gaaw yenente yi nag dañu naaw moo tax muqarrabiina ñu jege yàlla olamaa ay boroom xam-xam yi comme suñu góor gu baax gi dañu naaw moo tax ñu mën a jege yàlla mën a def lañu ñu mën a def ci seen dund bu gàtt dund bu gàtt ñu def ci lu rëy parce que li ko waral mooy ñett yëpp ay fonctionné bopp baa ngay fonctionné ñaari mbagg yi di fonctionné mooy sopp yàlla ak buggu yàlla ak ragal yàlla maanaam bugg yàlla ragal yàlla yaakaar yàlla ñaari mbagg yi ak bopp bu ñu àndee rek nga mën a yegg fa ngay jëm yàlla ñu yàlla yeggale allahumma ati nufusana taqwaha fa zakkiha fa anta xayru man zakkaha rabbana ixfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin